ñu ngi ñaan daal yàlla def ci réew jàmm ndax jàmm mooy jàmm sabab sëñ Tuubaa suñu yaakaar daana wax jàmm gisul ko gën fii gisul ko gën ci lu bari waaye ñun ki mooy Ndeye Gueye papa di soxna papa booy jënd wax ndànk léegi ngeen ko gis nag ci écran yi nam ngeen ko waaye tey moom la seet tey bett ko nag bi ñu ñëw tàggoowuñu parce bii nit buy dem këram jarul muy tàggoo jàpp ni ñoom moom ñoo bokk ndey baay ko xool nan la jullee mook papa naam dégg ngeen papa am na ko baabu xam ne mi ngi koy waaj diggante moom daan di fal loolu lépp nañ ci ñëw may tey ñu seet si un grand dame waxtaan ak moom tey julli bi julli day gi naa la maa ngi lay fay baa ba jàmm Fadel maa ngi sant yàlla bu baax ñu bàyyi la nga baal wax ñi la seetaan waaw eh, gannaaw ba ma sant yàlla julli si yonent bi di gërëm sama ñaari waajur di ñaanal sama waajur góor mu yàgg loolu te wér di ñaanal sama waajur bu jigéen fa mu tëdd yàlla ko gënal fi ñu jóge di ñaanal sama goro fa mu tëdd tamit yàlla sama ñaari goro yëpp fa ñu tëdd yàlla na leen yàlla e, tëral foofu ci jàmm yàlla na leen gënal fi ñu jóge yàlla na àjjana di seen noflaay di ñaanal sénégalais yëpp di baalu ñëpp àq di baal sénégalais yëpp àq di baalu ñëpp àq di wax yàlla na jàmm yàgg julli nañ ci jàmm. yàlla na jàmm yàgg la ah tey ci lan nga nekkoon ndax xam naa ni waaw nu ngeen ma fekkee man xam nga rek man yaay Fall la simple rek maa ngi nii sama rakk fa si sama njëkkee yi buri Ayda Koura ñoo nekkoon tey ñun ñëpp ñoo bokkoon ñëpp di togg bu ki jàppee fii ki jàpp fee parce que c'est la famille l'union fait la force. gis ngeen lu ngeen ma fekkee sama ah. grand bu sama robe bu ngeen ma fekkee robe 3000 waaw man dama tiit sax bi ma leen gisee ndax dama ne woon du ma wax ak benn presse tant que sama combat borom kër bi paasewul parce que damay xaw a maytu presse bi léegi dama koy daw dama moytu lu ma mën fan yi vraiment ñi ma woo bari na mais betti ngeen ma ñi ma nekkal ni ma jugal rek moo gën a rafet loolu moo tax daal. Ah, nan ngeen waajee si diggante Ndandi Fall Ndandi ah combat moom lamb moom man moom wax dëgg yàlla euh, euh, euh, mënu ma ci wax xam nga ñun lu ñu mën man jigéen laa lu ñu mën rek mooy jàpp ci julli ñaan yàlla suñu borom mu may ko ndam lu ñu war ñu def ko après mu jeex quoi hmm. Ah, yàlla may ko ndam non non yàlla may ko ndam waaw waaw yàlla moo yor ndam ñu ngi ñaan yàlla eh, may papa booy jinne ndam ci barke Seydina Mohamed mais foofu moom mënuma ci sori parce que du sama domaine quoi moo tax waaw mm-hmm. mais ñu a a def sorti lan mooy ni ma la ko waxee rek parce que da wax lii ñu ñu waxal la leneen parce que réew mi dafa naqaree waxe léegi mm-hmm. waaw loolu rek moo tax may daw mm-hmm. mais du dara waaw mais damay daw damay daw damay daw c'est normal ma daw parce que boo da ngay wax lii ñu titré la leneen xam nga nga wax lii ñu modifier say wax dafa waxal la leneen. loolu de Malick koy def. non yéen ñëpp la Malick mi moo tax ma ne bu àndul woon ak yéen bu ñëwee du ma wax. sama xarit la nag mais dama ko bàyyi. lu ma lu ma lu Malick def. non defuma dara maa ko bàyyi rek moom. mais koo bàyyi nag am na lu def lu mu def nag Malick Dakar Buzz lay waxal nag ma leeral Dakar instant Malick Dakar Buzz lay waxal ndax man kenn ma ko ban kii nga yor léegi man bii laa mos a fi kenn ñëpp xamee mu tudd Dakar Buzz social waaw wala moo tax sama social bi ñëw a góor ci ba tey loolu dinaa si loo mos a nekk ñu ngi mm. mm. ah, mais préparé yor sa borom kër di préparé combat bi day dafa mel stress ndax man stress du ma ko defati parce que ñi ma wër tax na du ma stress. waaw mais stress bi xam nga kañ lay doon jouru làmb ci bu génnee ba dem la stress bi di am mais nii nii doo am stress quoi parce que boo amee stress mooy teg nga ko stress yow waaw xam nga lan ngay def mu lekk ba suur naan ba mandi tëdd nelaw noppaliku xelam dal du dëgg ci loolu la ñu war a gën a focus que ay stress mm. stress jouru làmb ja bu génnee ba dem waaw boobu moom ci nen ngay toog moom waaw ndax nii nii doo toog ci nen parce que yaa ngi gis nit ñi xam nga nit ñoo ngi ñëw mu ngi dem di entraîner di ñëw nga xam ni kii entraîner na ah, am na ci lu mu téye lu dëgër dëgër dëgër li ci des nag yàlla décision yàlla la du dëgg mais bu génnee ba dem nag ngay xam ni ngay la stress bi soo ko jox mais ban combat papa nga toog ne papa takk génn dem nga jaxasoo àdduna yaa toog sa sago ba bari na man man saa yu génnee dem damay damay du ma kii mais dina ci pare combat yi papa de ko mën. non man papa rek papa nag góor mën ko yomb yombul nag déedéet. lamb moo tëradi takk de nga ni papa du ma stressé papa ka muy loolu mbër yëpp la bu takkee bu ta mbër kay ku sa mbër takk ngeen bu di dem kay nga yaakaar di ka muy moo ko mën. tamit loolu kay du moom kese nag du man kese maa koy xalaat loolu ñëpp la non mais c'est normal c'est normal il faut nga stressé wu après mm. bu génnee ba dem il faut nga stressé wu boo dee nit day xalaat sa deretu gor di daw sa yaram sëgam supporters yi ñu nga xamante ni bokkuñu ak moom dara dañ koy bëgg te yàlla tax rek parce que maa kii soxna kii mag ak ñi ko jege dañ waxante dëgg quoi on se dit la vérité am na ñu ko bëgg ñoo xamante ni tey buy bëri ji avant combat bi ñëw du ñu lekk du ñu naan ñu ngi dajale seeni i seen fukki dërëm seeni i téeméer defar pour defar seen i t-shirt dèjà nii nii rek ëpp presse bi xale yaa ngi defar seen i génneel ko benn challenge bu bees xale xale yi géejawaay gépp nag fépp jàmm gën ak fépp donc ñu leen remercier ñoom ñoom ñëpp di wax nañ ñaan yàlla yàlla moo yor ndam moo yor dernière décision bi yàlla na ko yàlla may ndam ci barke Cheikhul Khadim d'accord ñu gis euh, Ada Fass génn mhm. ay famille Ada Fass gërëm papa booy jine ci taxawaay bi mhm. ci ni ko jàppale ni mu ko soutenir mhm. tey xol bi papa yor tey ak coono yim ci daj ba donte génnewu ko mais def na ci ay effort suuf yoo xam tey bokk na ci li ko génn parce que gërëm doo ko defal ku la defalul dara Ada sama doom la bañ na ko ba du wax Ndeye Gueye yaay rek la may wax barke Cheikhul Khadim dafa mos a def geste bi papay papa gaañoo nit dafa am geste boo koy téye bi papay papa gaañoo bien vrai que ay lañ ci làmb mais dafa yëkkati ti am woo papa papa ni ma day Ada Fass moo ma doon woo léegi man ko def na lu rafet Ada Fass du toog ñaari fan te yëkkatiwul téléphone am woo ma làmb papa bi passé papa la doon supporté barke alxuraan donc papa du Ada Fass rek lay defal loolu parce que papa am na tey ñeneen am ay problème papa jóg dem police bi ñaan police Guédiawaye ay ñeneen ak ñeneen te Ada Fass li papa wax rek produit làmb la li ko war rek la def tey ñaanu ma ko yàlla tey natt boobu tey bu daloon papa Ada Fass noonu lay noonu lay noonu lay dawalee du dëgg te nattu jombul kenn donc comme que yàlla dogal na Ada Fass génn bi mu nee bi mu bi mu ko bàyyee tag xam nga kan la njëkk a woo téléphone man nii la njëkk a woo téléphone ni ma paas ma papa booy jënd barke Cheikhul Khadim papa gi di nu ma bàyyi fen waaye yëkkat téléphone bi ni ko papa am mun a kan la mën a ko arrêté mu nekk geste bu rafet ñi ci remercier ñi ci ñaan ñëpp mu nekk geste boo xamante ni li ko war la def papa xolam moo rafet gis ko nii nag muy kii nii xol bi moo rafet lu mu am jayu ma ko de duma ko jeté ay fleur de tàng na nag dafa tàng jër day lakke barke alxuraanu karim day lakke mais xol bi moo rafet tàng jërë tax wax ci bariwut mais xol bi moo rafet bëggul kenn am problème day yor junni léegi nit ñëw dis ko soxla mu jox ko ko toog di xaar yàlla yor 100000 léegi ñëw ni ko nga ñëw ni ko papa dama am problème mu mu jël jox la ko toog di xaar yàlla barke Cheikhul Khadim ak ak tabaski lu métti métti da nga koy waxal jikkoom dafa tàng jër jër jër mais xol bi moo rafet. kon li mu defal Ada loolu yoon la maa ngi gis ay mbokk Ada Fass di ko remercier li ko war la def xamu leen li ci suuf nag mais li ko war rek la def waaw. waaye nit dara war na ko ba taay ca def ko. Mhm. bu defee loolu tam te mhm. bu wëri tudd papa tey dafa jaaxal lu baax. ku tudd papa Ada Fass. wa ay bokkam. waaw naa ko maa ko woon papa. am na benn benn benn yow xaar ma am na benn waay bu ma gis. mu ngi remercier papa maa ko wax maa ko won papa sax ak Balla gay mu nekk geste boo xam ne ay ñoom Laurent affaire yooyu ak keneen mbër mais loolu moo leen war ñoom ñëpp nag te taxaw bi sax nag dafa des dafa des. loolu waaw. génnam jaaxal ñu bari parce que ñu bari ñu ngi doon xalaat naan kon am son da koy tëdd mu jékki-jékki jékki génn kon dafa mel ni démarche yi woon na. waaw ah loolu moom mënu ci sori parce que grâce moo ko bàyyi te grâce ku ne xam na ni que bu nekk dañuy bàyyi ay nit donc foofu moom mënu ma ci sori euh, nattu la woon bu teg ci kawam rek yàlla teggi na ko donc nañ ñaan yàlla mu bañ a mu bañ a dalat ci kawam mu bañ a dal kenn kenn kenn foofu laa ci mën a parce que mënu ma ci sori parce que affaire justice la quoi waaw. yaa ngi jub bés muy sa bisu papa lan ngay wax supporter rek waaw ñu ñaan rek comme niñ doon ñaanee surtout ñi nga xamante ni ñoo nekk Europe te papa xamu leen lu garaaw laa lay wax nii waaw ah ah, parce que man damay dajeeg ay nit dañ may woo téléphone sax jox ñu numéro papa nekk ba Europe te xamuñu papa mais dañ koy gis rek bëggal ko seen bopp te yàlla tax donc ak képp kuy bëggee papa booy jinne maa ngi lay ñaan yàlla na lay yàlla may tal ak fekkee ba le huit ak jàmm salaam open press bi le la ñu ñaan ñëpp ñaanal ko ndam ci barke Cheikhul Khadim ci barke Seydina Mohamed yàlla may ko ndam ñu génn ci làmb ji ñu waxtaan leneen man du <laughs> aussi waaw ah, waaw waaw digganteem ak Wally Seck waaw du dara lool du dara loolu ay rumeur moom fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi mënuñu ko bañ quoi parce que tamit boo siwee euh, di dégg lu ne waaw barke sëñ Touba Mbacke ndongoloo moo ne woon boo siiwee di nga dégg ne di nga daj ne di nga jaar fu ne ma mësuloo daw yow jinne xam nga lu ma la wax ndongoloo moo ko wayoon waaw kay man yooyu dama ko jalis instant bi ay détay ay wax moo tax dara safatuma dew ma kër kenn fekkiwu ma kenn fréquenté wu ma kenn àndandoowu ma xaritoowu ma kenn sama kër gi daal ñooy samay xarit su ma amee lu may doxi nag dox ko waaw non mais garaawul garaawul loolu du dara dara du dëgg nag dégg nga ah. waaw parce que ah. man xoolal man am na yoo xamante ne bëgguma di ci di ci focus daal parce que c'est des petits détails y a des trucs yoo xamante ne on peut paax parler quoi xam nga c'est pas nécessaire qu'on dit des trucs des des mensonges sur n'importe quoi yoo xamante ne ni da nga ci da nga ciy focus c'est pas la peine. te man j'ai pas besoin de sa aussi tamit waaw man je suis avec ma famille je suis tranquille tout va bien quoi. doom de Paris bi yaa ngi jom yow. doom de <laughs> nekkuma fa woon maa ngi woon jam ñaajo. ah moom eh, waaw kii nan lay jàkkaarloo man ma naan ma doom de yaa nga fa woon. dafa lay indi ci débat parce que foofu laay duggee tey nga gis avant ñu gis avant avant avant soirée bi. Mhm. Sénégalais ñenn ñi xawoon na tiit. lu ñu tiit. parce que est-ce que ni ñi doon baale. waaye yow nit ñi doon wuy ji. par rapport ak ak saagay ak jël barrière di. saa waaye yow man mii rek lañ ma wax <laughs> man. non ñooñu moom duñu ay patriote moom. ay lan la. non ñooñu moom góobu ne ay patriote lañ barke Sëñ Tuubaa daaj ma saaga saaga. xoolal biñ ma saaga bi ma duggee papa laa ji ko woo papa mu ne ah ma ko man de ñii nee na ñii daal maa leen rek di dugg rek ñu may daggal ay saaga ndey papa ne ma ñan ak ñan la ma ne ko man dama leen a xàmmee saaga nañ ma ba ma tooy papa ne ma dugg rek nga toog yow nga jàpp sa njàmbur. mais ci bi la wala balance ba pare man ak Ndiolé dañu fàtte woon a indaale suñuy bagage ñu bàyyi woon ko ñu ñu bàyyi woon ko foofu noonu comprendre nga léegi nag il est que bi coow li amee ñun dañoo waroon a bàyyi ba ni coow li amee ñun génn nañ dem quoi xam nga bi ñu balancé ba pare Wally Seck wax ñu morceau yi ñu war a yéeg man ak Ndiolé yëpp jël kaye bi ndéygee morceau bi nga war a yéeg Ndiolé morceau bi nga war a yéeg ñu lijjanti loolu ba pare ñu takkal ñu suñu badge ñu génn jël suñu jël jël oto maa Ndiolé ñu yóbbu suñu bagage man ma njëkk a ñëw Ndiolé gàddu sama saak dugg rek am sama benn xarit bu ma doon nuyu ma tourné nag dugg ba pare taxaw ci giri yi di ko nuyu rek waa ji fekk yow ndéygee bett nga ñu waaw yow Sénégal warul am lii rek ki daan danañ nangam tan seen nday yow ndey gay tega bu nag yii wax ju ñaaw joo xamante ni ma ne ko merci rek merci jërëjëf baal naa leen am benn problème xam nga. coow loolu par rapport ak après ci jour si ñu gis doom bi nekk na doom. waaw mais baa xam nga ni ñi ma doon saaga ñoo nekkoon ci biir doon bal looloo jaaxal man bi ma man bi ma joué ba pare damaa simmee simmeeku man solaat la ma soloon sol samay carax. génn ci biti di xool ñi ma doon sànq comme dama bari soir kenn ki laa ci gis bi may romb ma gis ko ci escalier yi mu taxaw di baal wékkoo saagam damaa daanu ma ne ko yow yaa nekk nii mu ne baal ma ñun waal rek leen doon sóob rek baal ma mais yéen ñu nekk ak waal yooyu waal bi mu yëgee ne ñaa ngi saaga mu yéen waal waal boobu la gën a amee force dañoo ñëw Mandiolé ak Aïda Dada taxaw di waxtaan ak moom mu ne tey doom toj de hmm. xam naa ne bu ngeen sañsee dëkk bi yëngu daan na ñëw leen ñu balaas acca gars yi ñu balaas taxaw balaas naan kafeem balance nga xam ni kii zéro stress daan ni tey lay toj doom de Paris barke Cheikhul Khadim lii lañ wax njolee ngi taxaw ay dadaa ngi taxaw géwél mbaayee ngi taxaw mu ne tey lay toj doom de pari parce que loolu jaaxal Sénégalais yu bëri tiitaloo leen ba ñu bëri naan est-ce que naa. non bu bul tiit parce que xam nga lu tax doo tiit parce que euh, ñaanu ndey liggéeyu ndey day feeñ ci bis yu mel doo tiit parce que ki organisé moom ma jaay na ay biyam ka neew kenn neew ko remboursé avant un mois avant moom gëmoon na ni moom kisuma salle bi day fees tel ba pare malien yi dañoo ñëw jàppale Kisma parce que Kisma c'est un malien pardon Kisma Diakité c'est un malien mais liggéeyu day moment yooyu lay feeñ liggéeyu ndey du du rafetaay liggéeyu ndey du kër gu rafet liggéeyu ndey du alal liggéeyu ndey du ku ñu takk may la ay millions liggéeyu ndey du góor gu jantal liggéeyu ndey du jigéen bu rafet xam nga li mooy liggéeyu ndey des moments difficiles yàlla taxawal mbir mi c'est ça le travail de maman loolu mooy liggéeyu ndey ñii ne du am yàlla sottil ko loolu mooy liggéeyu ndey kii du professionnel. en tout cas lima ma jaaxal li ma jaaxal. mooy que gëm ngeen ni kii. ba tey d'accord naa mais li ma jaaxal mooy que ni mooy mooy ñu doon xaare bis boobu ñu jëpp jàpp ni même wàllu bu joué tam dina joué ci ci ci stress dina joué ci ci moment yoo xam tam dafay joué joué malgré te no seulement bi wàllu ñëwee ci kaw bi. amul benn yoon boo sentir ni Wally Seck am na détail doon dégg mbaa dara waa mais dégg kay Wally li mu dégg ndax Wally dégg dégg dégg kay weesuwul mu dégg li mu dégg lépp mu dégg lépp koy waajal bis mu ñëw jël mais yàlla ëpp doole ñëpp barke Cheikhul Khadim ñooñu bi ñuy jël barrière yi te taxaw boobu man maa ngi egg si taxaw man Eumeudi Badiane ak euh, suma ak beneen gel ak ñoom Jules ak benn fecckat ak fecckat yi taxawoon foofu ñu ngi taxaw di xaar waa ji indi bat yi pour ñu mën a dugg balaa ñoom waale di egg yooyu njole woo ma ni ma foo nekk ma ne ko maa ngi nii taxaw mu ne ma maa ngi nii ci oto bi di ñëw ñu taxaw noonu man dama leen gis rek ma dénk gel bi sama saak man dama noon waaj a xeex ma non parce que dama comprendre ma woon quoi parce que waaj dafa jubal si si ñun rek daan fii lii du fi nangam tàndayam am rek ma dénk gel bi sama sac pour ñëwoon wax sa saag pour lan la comprendre nga comprendre moom woon quoi après bi ma leen gisee nag ñuy bari di ñëw xam nga après am kenn nag ku ma ci xàmme ñëw daan ne ma bett nga ma de xaaruma la woon fii waaw dafa am ku ma ci xam ni ma bett nga ma xaaruma leen parce que Sénégal am na ñu fa dee ñu kii tontuwuma ko ma daan ne boobu Amady Badiane dugg na pour dem jëli batch yi ma daan ne am na benn benn resto bu jàkkaarloo bu jàkkaarloo ak bi fa lañ dugg ma daan ne ñoom kii ñoom Gilles mooy euh, groupe El Hadj Diouf man ne kaale ñu jéggi ñun ñëpp ñu jéggi fecckat yëpp ñu dem toog foofu ci laa wooyee kii nag di ko di ko expliqué xam nga man moom fu ma tukkee bu dara pour papa mën na lépp quoi. pour man fu nekk moom mais pari papa la nga régler ma woo ko. wala bëgg jëkk bi nga xoolal ma woo ko appel ni ko xoolal xoolal. keneen la saaga daa bëggoon dagg bool ba fekk ko ba papa bu bu ñu ci yenn barrière yi. ndeysaan ndeysaan après nag waaw xoolal ñun nag ñun fi ñu toogoon ñun ñu ngi jàkkaar rek ñoom Baye Sall ñuy xataraay ak ñooñu man maa ngi seetaan direct am na benn waay bu doon direct bu ñuy sànni bari yeeg yëpp maa ngi taxaw seen kanam man comprendre nga mais après dama ni dama ni mais c'est pas possible quoi dama ni lii mënul nekk quoi ñii ki ñu àndal melul nii quoi ñoom pourquoi ñoom ñoom ñu ne su ñu ne diw la ñu àndal ñu def parce que diw santu leen lii hmm. comprendre nga diw dafa am lu mu bëgg ci réew mi mais santu leen lii quoi comprendre nga après nag ndeysaan bi soirée bi amee ma gis leen am na ci kenn koo xamante ni man ñëw na ni ma may ma billet si bari barke ar quraanu karim aram ñaa sama benn copine ñàkk sikk moom laa waroon woo téléphone nii mu ngi fii sax ñëw na Sénégal euh, ko am na koo xam ne kooku moom doon saaga lu de mu def ko gis ñëpp gis nañ ko TikTok gi et buntu hôtel Waly laa ko fekk biñ ñëw suba la ñuy ñibbisi mu téye sama loxo ànd ak man ba ci gab ba yëkkati jël retiré gab man ak aram ñaa ñàkk si mu yëkkati cent euros may ma ni ma waali laa bëgg gis ma ne ko pourtant ñoo taxawoon léegi léegi léegi ci buntu Zara bi mu ne ma animo ma ne ko dugg na léegi hôtelam fekk ñun aram dama doon jënd parfum maak aram ñu génn rek yam ci waali taxaw foofu wax ak waali biñ ne suba li ñuy ñibbi taxaw wax ak waali dama dox deux pas rek dajeeg waa ji te kooku moo doon xataraayu foofu mu ne moom waali la bëgg foto mais nday yow mi jege waali c'est qui waali baax waaw parce que dafa bëgg gërëmal ma ko. non kaay waaw ma xam. kaay ma dagg la foofu ku ma xam xam ni du ma ñaan. dafa yëkkati xaru tabaski jox ma ko ren. Mhm. santal ma ko gërëmal ma ko ndax ku santul nit du sant yàlla te baadoola du gërëm ab dof du gërëm kuy ñaan du gërëm. Wally Seck Maria Sine ngi ñaan yàlla guddal sa fan te man mii man duma la ñaan ñaan kenn waaye da ngaa yëkkati teraanga ko muy xaru tabaski te am ko jëndee yàlla mi tax nga jëf yàlla man mii de chaque année mu jox ma xar te sama jëkkër daf ma yeewal xar mu mat xar na barke alxuraan su ma la wanee xar ma papa yeewal da ngay tiit dugal naa ko sax sama stati da ngay tiit dem bi ma génnee bi ma ñëwee fi laa fekk xar bi ma ne ko waaye yow papa yow lii lan la ñaata xar lañ ma may mu ne ma man li ma war laay def damaa yor njaboot te damaa yor soxna li ma war laay def di jël ma dem gis xar bi damaa tiit waaye wali sekk man aw ma fayam man sama xaalis aéroport Sénégal gi lañ ma ko joxe ndax ki ma ko ki waroon ki ma waroon jox sama xaalis man xamul woon ni man lañ ko wax mu jox te mu ngi jàkkaarloog man ñoo bokk benn vol ñoo dende mais ay fii la ma joxe jagawara waali waali da ko woo ni ko ndax ndéegee jot na xaalisam mu ne ko Ndeye Guèye maa yor xaalisam départ na de wàcc na ba génn ba ñibbi waa ji daf maa woo sama chauffeur la dajal Ousmane Sylla la dajal fii Cambérène bi mu laaj ba wax mu ubbee enveloppe bi dama tiit booy war nit ku baax jàppal faramareen bi booy war gor jàppal bi booy war nit ku mën nitam jàppal faramareen bi booy war nit ku xeebul nit jàppal faramareen bi ku mën nitam mu mel ni ay coog wax moo yokk ay wax man mi sax moo ma yokk man coog wax a yokk di man coog wax a tax moo tax ma yegg si fii tey ak liggéeyu sama waaji Alaaji Baara Falilu et kii fekke na lépp. kii fekk na lépp. Hmm, ma ne kii kii daa fekke lépp moom. kii daawul jóg suma kër. fii mi guddi bëccëg ngoon. am jom nag teel am jom. ah yow tam kii maa nag moom dem Gambie. ngeen ànd. ñun ànd nañ Paris cinq fois. ah mënuñ ko da gaaw ànd bi ànd nañ pari cinq fois Ahmed doom may was. lépp ci wax ji Ahmed may. sama pro baa ngi ne. Ahmed may ko <laughs> waaw engagement Omaro bi noo gisee discussion kooku rek laa bëgg mbaa xam nga dama ko bëgg dama xaw a démb ni ko Omaro toj nga dëkk bi mu ne ma xanaa yow yëgoo ni waali waali euh, kii kii gouvernement bi yow ak Ndiolé ci ngeen bokk ay député ngeen yónnee ma vidéo bi ñu ñuy lim. ah yow ban poste la jox. député assemblée nationale. <laughs> mais ñenn ñu tam ñenn ñu bëri tam xaw a xaw a bañ a d'accord ci li mu waxee. parce que biñ jàppee ni daf defal naa ko dañuy dañuy dañuy waaw xaaral xaaral xaaral dañuy wax ci waxu xar yi ah, waaw daf ma may daf ma may xar Matar Diop suba teel dafa ma woo rakkam daf ma woo mooy jour ma pako woowee ni ma waali nee na xar a ngi fii nga ñëw jël si ko dégguñu la boobu ba tey ma ne ko maa ngi ñëw bu guddee maa ngi ñëw ndeysaan dafa coupé même pas 30 minutes rek rakku maxu suba teel woo ma ni ma maxu nee na euh, ñu indi la sa xar fan nga nekk ma ne ko yéen fan ngeen nekk ñu wax ma fi ñu nekk ma ne ko damay dem kër waale ndax waale daf maa may xar mais su ma fa jógee naa jaar jël si xar boobu ndeysaan ma jël xar ba pare woo ko téléphone rek ko ma ko bi mu tegtal ma ba yegg si parce que man xaw kër ma ko mu tegtal ma yegg si buntu kër gi mu jox ma xar yëkkati xaalis su bari jox ma te sax bëgg sax ku koy tudd waaye nit bu la defalee teraanga foo wax ko bi may social maxu bi mu ne càpp yëg ko dafa jënd lu ne indi ci togg pour xale yi mati laam tamit la même chose Aziz Ndiaye la même chose Moustapha Ba ministre des finances la même chose Alaaji Mam Boy Diawo la même chose Badou Diawo la même chose Pape Diouf jabaru baas chéri bébé baas ak bébé baas yëpp. mais ñoom est-ce que la léegi. député fa. nguur bees gi nee ci léegi. ñooñu nag bu ñuy dimbali day dimbali ñenn bii de député bii de jëkkëram daa am combat te damay woo ñëpp nag ñu ñëw jàpp ci kuy jàpp na nga ñëw jàpp ndax le huit jot na. waali waal du fàtte waali du fàtte yow. combat bi bi combat am la mais papa dafa am ku mu tuddee combat bi. kan la Tunde la ko tuddee the king. barke yonent bi moom la papa tuddee combat bi. Tunde men Tunde the king is a <laughs> <laughs> man ay waaye. papa am na keneen ku mu tuddewaat combat bi de. Tunde am na bis waaye papa am na bis de. waaw papa bi bàyyi ñëpp Tunde la tuddee parce que Tunde daf maa bëgg moom te papa ku ma bëgg da bëgg. ma xarit la de. waaw waaw waaw. te wooteel da ngaa jub te da ngaa a ah, jàppale. woo Alaaji Mam Boy Jaawo nag chéri mama Jaaju. gisuma ko ci tabaski waaye naa ko woo. tabaski ko de. waaye naa ko woo mm. kooku dama koy woo yàlla moo ñu boole mm. waaye di woo Moustapha Ba borom ñooro Séri Yaasin waaw jaa ngi noonu li sàcc bi bañ mm. lamb papa ji damaa bëgg mu jàpp ci bu baax ñëpp nag bàyyi ma kenn ñëpp laay woo ñëpp papa bu ñëwee toog fi xëy na dina woo ñi ci des d'accord ma ñëwaat sama question bi Omaro def engagement taxawal gouvernement bees ne waale président kenn ku ne mu jox la poste Aziz kii nag moom ñëpp ku la ma jox yow dégg nga député lan la jox yow moom sa bos fooru ndax yow moom waaw assemblée nga lañ jox député seen bos garaawul waaye ñun buñu demee assemblée duñ xeex na assemblée bi danañ xeex ñu ci bëri tam jàpp ni discours Omaro d'accord nag moom ci us commentaire kenn ku ne tam ak ni nga gisee que biñ ñee jàpp ni jigéen ji gën a sell gën a dàq jaamu yàlla la moon de soo ñëpp doon xalaat yaayam wala ngeen xalaat jaaga këram mu teggi dem ci Fatou Gueye jàpp dafa juum ci communication parce que. oui loolu ku nekk waaw ah, waaw keneen jiw la yaay waale ah ok déglu ma loolu man déglu ma loolu déglu moo gën a sell yaay moo gën a sell yaay sama fii liberté 6 jigéen ju baax ju yiw ju sedd ju dal la waaye jigéen ji gën a sell ci kaw suuf dàqa jaamu yàlla daal ne Fatou Guewel mais daf ne Fatou Guewel la jubale ñu ma yëguma loolu sax ah. yàlla mu duma cee sori parce que seetaanu ma ko hmm. yàlla seetaanu ma man daal dagg-daggee yi laa seetaan kooku yàlla gudd fa kooku Paris sëgg man la rayul man waroo France man ak aéroport gii mangale dañoo ñëw ni ko fii aéroport ko Omaro jëndal ñu mu ne kaa leen dem fii café 1500 lay jar xaw ma 2500 ñu yegg si taxaw mu ñëw daal ne <laughs> maa ngi ñu ngi de mu daal di ni gel bi yow jox leen café yoruma sama poste nag lu dul deux mille six cent <laughs> jox leen café njëgu deux mille six cent bu mu ko <laughs> ko man du ma naan café meew laay naan man ko man maa naan café non Omaro Omaro amul oh. Omaro nee na buñ ko nee kii nee na lan ma baara mbay nee na lan ma baara mbay Omaro lan lay baara mbay lu bon ah xanaa lu bon Omaro yàlla gudd fan ah xam nga ne Omaro dafa neex mbaa xam nga ni commencé na am xaalis mu ngi de mos de ah li mu wax eh, ngi mos mu ngi mos koo xam ne chaque fois mu jox ko un million. ci kii la Awa Baba loolu moom dëgg la moom. loolu moom dëgg la koy fayeeku Awa baaba moom day o doo ma teema jàng baat yooyu <laughs> ah Omaro waay ah, fan d'accord ci woote bi nag non man wo naa ñëpp ah. di woo waa Gunaas yëpp di woo sama mbokk yi lébu yëpp fukki penc ñaar di woo sama mbokk séeréer yëpp di woo waa njàmbur yëpp maa ngi leen di woo képp kuy yor kurus rek mu ngi lay ñaan nga ñaanal Papa Boy ne yàlla may ko ndam ci barke Seydina Mouhamed yàlla mi yor ndam yàlla na ko yàlla may ndam yàlla mi yor ndam yàlla na la yàlla may ndam ndax nag bu la yàlla fayee sa di nga am ndam de jóoba juba non non du ma jooy ku la xamul rek lay critiqué barke borom Tuubaa ku la xamul rek kay wax ci yow waaye ku la xam du wax ci yow eh li ngay def ci social di jàppale ay nit barke Cheikhul Khadim ay nit a ngek ay milliards te defu ko mm. man des fois damay dama dama lay mere sax ndax da yor benn junni joxe ko man ma soxla ko nga joxe ko bu dee xool rek la yàlla di fay gëm naa ni yàlla dina la may dam ndax nag tarbiyu nga ko sa baay nag tarbiyu nga ko sa baay de dangaa tarbis yu sa baay taxawu ko ba mu dem bu la ñaanu waajur toppee doo sonn ndax li ngay def nag cuune munu ko c'est ça la preuve li ngay def ngaa ko munu ko li ngay def yambar munu ko et je te jette pas des fleurs ah je te dis la vérité du ma waxal kenn yàllaa ngi lay nuyu te gisuma la am na noo doon mel bu e caméra yi toogee ma wax sama wax jóg dem waaye bu ma toogee fii lu toll ni tabaski nga jëm ci bis sànq nee nga lu tabaski gi neex neex neex le huit maa xewle loolu la wax barke borom Touba barke Serigne Touba su bàyyi dekk woon ñëwaat fii ci jamono dooni defaraatal du la ni defaraatal sa toogaay dooni waat nii xaaral ma def nii déedéet ci le ferai même pas tu as bien engagé avec ta famille eh. et ta femme Dieu va te soutenir barke Serigne Touba Dieu va yàlla dina la taxaw yàlla bu son noon bég yàlla bu son noon ree yàlla mi am fay yàlla la fay waaw kay. te la ak loolu moom biti la fanaan yàlla yàlla loolu moom biti la fanaan yàlla dañuy bàyyi moom bu soobee yàlla. Mhm. yàlla dañuy bàyyi weer bay werante. kon yàlla boobu koy takkal jabar man. ah yow rek bu paree bu ne ma lii laa bëgg bu ma wanee ku te muy sëyal ko te yàlla tax ma takkal ko loolu bit la fanaan yow jëgal kenn ci nga nekk ak sa jasneer tàngaay bi waaye maa ngi nuyu Baye Modou kan ma sataak ma sayer ndaak borom Masalikul naan borom Cambérène 2 moo ma génn ci brodé bi mën naa jóg déedéet yow ndax man yow laa bëgg waaye yow fu ñu dikkee du baax si naan di faal waaye jeesu ku baax ah ami sama ku baax ami samake moo ma tàggale kalaadoo yi maatutu konte nit ku baax moo ma tàggale kalandoo yi moo ma jox ford buy jar ay millions ne ma dee ko dawal da mérito nga ko nag vraiment ba yàlla na gudd fan parce que Serigne Touba ji asare dafa baax parce que dafa ma mës a jox ko mbenn jaata mu jox ma yooyu lay def waaw daara jëm ko joxe woon à l'âge de six ans la dem jënd kër ga def ko daara muy Medina Bambara ndeysaan bu baax yàlla na gudd waaw baax rek am solo ak la nag yàlla defal la jàmm defal Sénégal yëpp jàmm ñëpp am jàmm jàmm am ci réew mi tey wax ma Macky Sall bii gouvernement Macky Sall bii nañ bàyyi aj ay verre taal kilim ànd ak ay garde corps te bu génn jotee ñu woo xale yi xale yi politigal leen di leen xeexal ci réseaux sociaux yi taxawal. xanaa ah, ngaa bokk ci non man kenn du ma def loolu ndax am naa fulla gu mat mais dañ ko def ay nit ma gis ñuy xeexal président Macky Sall di jënd seen crédit pour président Macky Sall. ñu leen di saaga ci tiktok bi di leen yàq ngelembaan njaay et eh, nañ jàppale président Macky Sall parce que président Macky Sall loxo mënu jote fépp ñi mu fi teg nañ ko jàppale nañu gestu xale yi nañ dëgg nañ gestu xale yi ku bëgg a lekk lépp fot il faut ngeen di gestu xale yi parce que bu génn jotee xale yooyu sol seeni t-shirt ñooy génn xale yooyu toog ci réseaux sociaux yi di leen défendre kon bu bis yu mel nii jotee même même bu du bis yi sax bàyyi leen yéegal vitre yi taal kilim ànd ak ay garde corps teg ci ay garde corps seen buntu kër génn leen ci askan wi ngeen xam ne askan wi soxla waaw kay génn leen ci askan wi man maa leen wax lool te bu ma génnaatee dinaa waxaat lu gën a fort